C'est bon C'est Mesdames et messieurs, c'est avec euh, une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouveau directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication Le Soleil. Je suis honoré de succéder à mes prédécesseurs et de poursuivre cette mission ô combien cruciale de service public de l'information. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, à Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, pour la confiance qu'ils ont bien voulu placer en moi. Je remercie également le conseil d'administration ainsi que mon prédécesseur, M. Yaramba, ici présent, pour sa disponibilité En ces moments de grande solennité, j'ai une grande pensée à l'endroit de mes parents pour tous les sacrifices consentis dans notre éducation et plus particulièrement envers ma défunte mère, l'héritage de valeurs cardinales qu'elle a bien voulu nous léguer à moi et à mes sœurs ne cesse de nous guider comme une boussole dans notre vie et dans nos relations humaines. Qu'Allah subhanahu continue de la couvrir de grâce ainsi qu'à tous nos disparus. Je remercie mon épouse et mes enfants pour la grande compréhension et leur accompagnement dans ce choix professionnel qui vient bousculer relativement la stabilité familiale. Je profite de ces instants pour rendre à toute la communauté sénégalaise établie au Canada, dont certains membres sont ici. communauté dynamique et respectée, avec laquelle j'ai eu à cheminer ces 18 dernières années, tant au niveau associatif et politique. Le Sénégal, d'ailleurs, gagnerait beaucoup à profiter de sa grande expertise dans divers domaines. à mes proches amis ici présents, à tous les membres du personnel. Vous avez tenu à vous déplacer et à m'attendre. Hein? Merci beaucoup de votre présence. Si nous avons accepté de quitter le Canada, malgré une carrière professionnelle prometteuse et l'assurance d'un vie dans un des pays les plus développés économiquement, c'est parce que nous sommes suffisamment convaincus qu'une nouvelle page de le 24 mars Quelque chose de grand s'écrit, sans aucun doute, sous l'impulsion de, de cet homme et de son Premier ministre. Et nous ne devons pas manquer le train de l'histoire. Chaque Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, doit apporter sa pierre à l'édification de cette belle nation qui nous a tout donné. Et nous estimons d'ailleurs qu'il n'y a pas de mission plus exaltante et plus honorable que de servir son pays. Le soleil, cette société sénégalaise qui, que nous allons est l'un des de la presse sénégalaise avec une histoire riche et Depuis sa création en 1970, il a été la voix du peuple sénégalais, informant et éduquant les citoyens sur les événements nationaux et internationaux. Cependant, ces dernières années, beaucoup l'ont déjà le journal a fait face à de nombreux défis, notamment la concurrence accrue des médias numériques tels que les sites de presse en ligne, mais aussi des difficultés financières. malgré tout cela que le soleil a un avenir radieux devant lui car cette entreprise regorge de ressources humaines de qualité Ndiol Mack Seck tout à l'heure l'a répété et j'en suis convaincu tous les matins quand je parcours les lignes du quotidien je vois le niveau la qualité de ces ressources humaines de, des journalistes qui n'ont rien à envier aux meilleurs journalistes au monde c'est donc un avenir plein de promesses que je nous vois construire et où la marque Soleil brillera de mille feux, rayonnant au Sénégal et bien au-delà de nos frontières. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons nous unir, nous mobiliser et nous conformer aux directives du président de la République, Diouf Jubal Jubanti. Il nous faudra aussi s'adapter aux réalités du paysage médiatique, élargir notre lectorat en cherchant à attirer une audience plus jeune et relever le défi de la transformation digitale. C'est pourquoi je ferai de la transformation, de, plutôt de la digitalisation, une priorité absolue. Nous devons moderniser, moderniser notre infrastructure informatique, développer de nouveaux produits, nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l'information du lectorat. Notre modèle économique doit être euh, repensé et réinventé en profondeur pour trouver de nouvelles sources de revenus. En plus de la digitalisation, je me concentrerai également sur les points suivants. D'abord, l'amélioration de la gouvernance et de la gestion. Nous devons en effet mettre en place une gouvernance d'entreprise saine et transparente. Notre gestion financière et opérationnelle devra impérativement être améliorée afin de permettre à notre organisation de retrouver sa place d'antan au guichet des grandes entreprises. Et même mieux, nous pouvons prétendre à une certification ISO qui nous conduira certainement vers le chemin de l'excellence. Il nous faut également redynamiser la rédaction et la direction commerciale. À l'ère de l'information en continu, des fake news et de la mésinformation, nous devons résolument produire un journalisme de qualité qui soit pertinent, équilibré et accessible sur plusieurs canaux print et digitaux. Bref, nous devons assumer pleinement, et ça je tiens, nous devons assumer pleinement notre leadership en journalisme ici au Sénégal et remplir avec fierté notre mission de service public de l'information en nous ouvrant notamment aux citoyens sénégalais établis à Dakar, dans les régions et dans la diaspora. Parallèlement, les équipes marketing et commerciales devront se remobiliser. Pour saisir de nouvelles opportunités de monétisation, il s'agira de construire un écosystème de produits et d'offres innovants permettant de générer de nouvelles sources de revenus tout en renforçant notre positionnement sur le marché. Parmi ces leviers de croissance, je peux citer les éditions du Soleil, avec notamment la publication de journaux, de magazines thématiques dont celles axées sur les secteurs clés de l'économie, mais aussi sur la vulgarisation des projets et des réalisations de l'État. La publicité digitale, les abonnements numériques, la numérisation et la monétisation des archives du soleil et les produits d'imprimerie sont des niches que nous devons explorer. L'ADP, il faudra aussi penser à un plan de relance et de modernisation de cette agence, donc l'agence de distribution de presse. Une filiale de, du Soleil qui sera également au cœur de notre stratégie de développement. Il s'agira, après diagnostic et éventuellement audit, de dresser un plan de relance avec l'accompagnement de l'État, nous l'espérons bien, afin qu'elle puisse renouer avec ses activités historiques, notamment la distribution de la presse quotidienne sénégalaise et étrangère, les livres et les manuels scolaires. Et surtout entamer une diversification de ses activités en explorant de nouvelles opportunités d'affaires comme le lancement d'un kiosque numérique. Le capital humain, on a beaucoup insisté là-dessus. Et ça, ça me tient à cœur. Il nous faudra donc beaucoup investir là-dessus, parce que ce sera le fondement de nos futures réussites. Donc nous mettrons en place une politique de gestion des ressources humaines efficace qui va comprendre notamment des programmes de formation et de développement des compétences, pour permettre aux employés du Soleil de s'adapter enjeux du marché, de la presse et d'acquérir de, nouvelles compétences, euh, de de développement de l'entreprise. Le monde évolue, comme vous le savez, très très vite. Les connaissances également, ce qu'on connaissait il y a quelques années ou il y a quelques mois, ça devient obsolète très rapidement. Et les entreprises performantes sont des entreprises qui s'inscrivent constamment dans la formation continue. Il nous faut aussi un environnement de travail stimulant et valorisant, qui favorise la créativité, l'innovation et le bien-être des collaborateurs. Je crois fermement que c'est en travaillant ensemble dans un climat de confiance mutuelle, en les talents, et les idées de chacun que nous pourrons atteindre nos objectifs communs et continuer à servir le public de manière exemplaire. Aux partenaires sociaux, vous avez pris la parole et je vous ai bien entendu les différentes interventions. Je reconnais pleinement votre rôle est très important et que vous jouez en tant que représentant des employés. Votre voix est essentielle pour comprendre les préoccupations, les aspirations et les idées de ceux qui contribuent au quotidien à la réussite de l'entreprise. C'est pourquoi je vous invite à un et constructif où nous pourrons échanger nos points de vue, partager nos réflexions et explorer ensemble des solutions innovantes qui vont profiter à tous. Pour terminer, je dirais que le soleil doit redevenir l'astre de toutes les communautés, celui des régions, des départements, des villages les plus reculés, celui des Sénégalaises et des Sénégalais les plus éloignés dans la diaspora, celui de ceux qui lisent mais aussi de ceux qui ne lisent pas et que nous avons quand l'obligation d'informer. Tout en restant ce des décideurs, Le soleil doit exposer les sourires et les pleurs des Sénégalais. Un soleil qui se lèvera sur nos savanes proches et lointaines. Je suis donc impatient euh, de commencer ce nouveau chapitre avec vous tous et construire un avenir encore plus prometteur pour notre organisation. Merci de votre confiance et de votre engagement continu. Ensemble, nous avons la capacité de faire une différence significative. xanaa ma ma jëm ko tënk rek ci wolof li ñu wax xam naa ne xaar bi yàgg na waaye mënta ñàkk euh, ñu tënk ko rek ginnaaw bi ma sant yàlla euh, bu baax euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax samay ñaari woyjur di ñaan sama woyjur bu jigéen fa mu tëdd yal yàlla yokk leeram ak ñi jiitu ñëpp di gërëm bu baax di beral ngërëm ak cant ki nga xam ne moo di la président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre am Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne euh, mooy le ministre de la communication des télécommunications et du numérique muy Alioune Sall tey euh, ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm yaa ci teewaayam euh, di gërëm képp koo xam ne xarit nga am di jàmm nga kóllëre nga tey nga sol sa daal ñëw teew fii yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a baax Euh, mu doon sas boo xam ne dañ ko teg ci suñu ndodd mu doon loo xamante ni bi kóolite la laaj moo tax ñuy remercier le président de la république ci confiance boobu te di ñaan ñu mérité confiance boobu ba yaakaar googu ñu mën ko matal tey kër gi nga xam ne moom la ñuy ñu teg ñu ci bopp bi muy la soleil dama am ngëm-ngëm am yàqin ne journaliste yi fii liggéeyee amul lenn loo xamante ne bi war nañ leen ko mën a jàngal ci journalisme ma nekkoon bitim réew heure bu ma xëyee di ubbi journal di liir mun naa ne biñ ma noomee ba léegi may jot PDF bi di ko liir doon liir li journaux yi di bind fii ci Sénégal waaye amul benn méngale boo xam ne mën nañ ko def ci qualité ci li Soleil di bind. ma amat confirmation santaat yàlla ci bu may ñëw ci kër goo xam ne li fi nekk ci ay qualité li fi nekk ci xam-xam li fi nekk ci mën liggéey donc loolu lu ñuy yokk la rek wala lu ñuy dooleel la pour li nga xamante ne bi tey fël mooy gis bu ñu am. ñu mën fa yegg dëgg la kër gi wax nañ ko am na ay jafeñ-jafeñ am na loo xamante ni bii lu nit ñi di xaar la waaye mën dafa am loo xam ne dama ko gëm te ñii fi jotagum àddu leeral nañu ko mooy gëm nañ ne kër gi mën na jógaat gëm nañ ne kër gi mën nañ ko yóbbu fu sori te loolu mooy am bu soobee yàlla tey nag bu ñuy wax presse di wax li nga xam ne mooy le soleil mu nekk mun nañ ko tuddee ndeyu lépp loo xam ne mooy taskatu xibaar këru ndey euh, taskatu xibaar jafe-jafe yi bokk na ci li ñuy wax presse en ligne nga xam ne tey di diirante mbagg euh, presse écrite bi muy papier ndax euh, ni ñu koy defee dañu créer leneen loo xamante ne bi mooy journalisme bu bees ak presse en ligne bi mu am loo xamante ne bi ay buntu la yu bëree bëri yu muy tijji ñu bëri dañ koy jàppee menace waaye xarale yu bees yi opportunité rek la yoo xamante ni bu ñu xamee nan lañ koy saisiré yu bëree bëri mën nañ ñu ko permettre ñu def ko et donc moo tax sànq ma ngi wax ne le digital wala lu jëm ci la digitalisation day bokk cëslaayu sama liggéey ci biir le soleil incha allah lépp loo xamante ne aussi mooy jëm ci euh, ni ñu ko waxee ADP ñu xool nan lañ koy suqaliwaat lépp loo xamante ne bii ay produits dérivés la ñu xool nan lañ koy suqaliwaat te loolu yëpp nag mu ànd ak ñu bokk liggéeyandoo ko. benn nit mënul benn groupe mënuñu mbooloo la laaj waaye tamit dafa am loo xamante ne bii dégg naa ko déggaat naa ko te dafa am mun naa ne tënk boo xamante ne bii président de la république ci gis-gisam damay wax ne bu doon ay école de commerce li ñuy jàngale xalaat boobu rek tënk na li ñu fay jàngale te mooy jub jubal ak jubbanti jub war a nekk jikko boo xam ne ku nekk ci ñun bu nekkul ci yow nga jëm ko ci saxal parce que valeur la lu nit di bëgg la lu nit di ñaan yàlla mu nekk ci yow muy jub jubal ci liñ la dénk waaye tamit jubanti muy xëy na ñi nga xam ne ay kilifa lañ wala koo xam ne ak foo mënti nekk gis ne lii lu ñu war a euh, joyanti la nga jëm a fexe noo koy joyante loolu yëpp nag doomu aadama moo koy def te damay euh, benn baat boo xam ne sama waajur bu góor daf ma koy fàttali di ma ko wax ne ma euh, da ngay baax ci sa alal ñeme sa der muy mottali jub jubal jubanti boobu baax ci sa alal ñeme sa der baax ci sa alal ñeme sa der liggéey bii nag ay nit a koy def te nit ñooñu di ko def man njool Ndiol Maka Sànq Maka wax na ko man dama gëm l'humain dama gëm parce que dëkk yi ñu nekk jógee fa loolu la ñu gëm bu ñu tënkoo ku nekk def li nga war a def amaana jàmm rek mooy am euh, xalaat yëpp na yàlla sàkkul doomu aada euh, mbooloo moo xam ne ñëpp a bokk ni ñuy gisee ñàkk gis bokk gis-gis boobu sax dama naan richesse la day permettre nit ñi bu fekkente ne benn gis-gis bi benn la bëgg-bëgg bi benn la Euh, bu xalaat yi wutee tamit euh, solution war naa mën a gaaw mu bañ a nekk ci ay nit waaye mu nekk ci li nga xam ne tey moo ñu boole ca mooy entreprise bi donc di wax bu baax rek ne tey ñii fi nekk partenaires sociaux yi ñëpp ma leen di woo di leen woo ci liggéey di leen woo ci li nga xamante ne bi mooy objectif bi mooy gis-gis bi ak fi ñu bëgg a jëm te mu laaj laxasaayuwaat nag loolu la laaj de liggéey la laaj bëgg-bëgg yi bari na li ngeen fi wax bari na waaye nag liggéey moo koy sottali waaw te liggéey boobu dama jàpp ne tey jii lay tàmbali tey jii la liggéey boobu di tàmbali noonu la ko président bëggee noonu la ko premier ministre bëggee ñoom ñi ngi dox ci tànk yooyu donc képp koo xamante ne bii dénk nañ la ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci biir Sénégal ci tànk yooyu boo ci wéyee amaana li ñu bëgg dinañ ko mottali donc euh, bañ a guddal rek euh, di rafetluwaat bu baax a baax seen teewaay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah